Ousseynou mbay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. voilà Ousseynou Mbaye nga nekk spécialiste en droits humains déjà ma lay laaj euh, phénomène du travail des enfants wala sax exploitation des des enfants yow ban jàngat nga ci am fii ci Sénégal. Euh, jërëjëf ci question bi jàngat bi mu ci am euh, jàngat bu simple la ñëpp ko gisandoo xale yi ñu ngi leen di liggéey loo ñu ngi leen di def loolu xam ne dafay nekk loo xam ne daf leen di gàllankoor parce que. xale li ñuy xaar ci moom mooy mu jàng li ñuy xaar ci moom mooy ñu former ko ba nga xam ne bu màggee dina mën a amal boppam njëriñ dina boppam euh, dina amal njëriñ ci askan bi en tant que tel malheureusement constat bi ñu def c'est que xale yi de plus en plus dañu leen di liggéeyloo lu ci bëri góor yi en fait euh, ci góor yi la ëppee bien vrai que jigéen ñi également comme par exemple les travaux domestiques dañuy gis ne ñu euh, ci bëri bon yi ay xale yoo xam ne ils ont elles ont les femmes et les filles elles ont entre cinq ans et dix-sept ans te loolu mooy xool euh, convention wala texte yi nga xam ne dafay aar doomu aadama daf koy tere en tant que tel donc nekk na loo xam ne ñun ñëpp dañ koy méttilu yaakaar naa ku ci nekk rek war nga mën a xool nan nga def pour que loolu mën a dëj ci Sénégal parce que dafa nekk loo xam ne dafay renvoyer une mauvaise image pour notre pays. mais lan moo waral Ousseynou Mbaye euh, convention internationale yëpp di tere liggéey gune yi lan moo ko waral. li ko li ko waral en fait dafa lu simple la xam nga xale bi bu fekkee ne dañ ko bàyyi mu liggéey li nga xam ne moom mooy maanaam euh, ak ak yeneen fam jëm ci wàllum maanaam maanaam jàng éducation da koy da koy da koy da xale bi. donc loolu benn la dafay privé maanaam xale bi mu jàngi te xale bi bu jàngul xam ne am na lu bëri loo xam ne peut-être du ko mën am na lu bëri loo xam ne ko mënal boppam beneen bi mooy dafay nekk loo xam ne dafay maanaam gàllankoor xale bi ci wàllum maanaam euh, euh, yokkuteem ci wàllum développement am euh, ci wàllum également scolarité ci wàllum wér-gu-yaramam mën na nekk loo xam ne daf koy daf koy daf koy daf koy handicapé en tant que donc loolu moo waral euh, convention yi wala texte yëpp yi nga xam ne dafay euh, maanaam protéger xale yi maanaam ñu ñu ñu ñu tere bépp liggéey boo xam ne xale da koy xale da koy def xale nag boo ko déggee mooy. Mhm. toute personne voilà qui a moins de moins de dix huit ans. moins de dix huit ans est-ce que am na différence ci diggante euh, li ñuy wax travail des enfants et exploitation des enfants. boo xool en fait y a pas amul amul maanaam différence. parce que l'organisation internationale du travail moom moo joxe définition euh, maanaam travail ou exploitation des des enfants donc euh, amul différence parce que lépp loo xam ne maanaam dafay maanaam dafay gàllankoor wala day tax xale bi du mën a jàngi dafay tax xale bi du mën a maanaam yokk am yokkute ci boppam ci wàllum yaramam ci wàllum xelam yooyu yëpp wala ci wàllum jàngam yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ koy tuddee maanaam exploitation des des des des enfants Euh, voilà léegi tey ji nu mbay ba léegi lu soxal mbirum travail des enfants naka nga euh, gisee euh, mag yi nga xam ne gis nañ ne actuellement dañuy utiliser ndaw yi di leen yalwaanloo ci mbedd mi am na ñoo xam ni sax dañuy luye ay xale pour di leen yalwaanloo comme ni nga ko gisee ci mbedd ndakaaru yi nit yi nga xam ni pratiquement yooyu dañuy yor ay xale yu tuuti vulnérable di leen utiliser ci wàllum yalwaan gi ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci mooy du yoon du yoon parce que sunuy euh, euh, sunu yoon daf ko daf ko tere code pénal à l'article deux cent quarante cinq daf ne maanaam euh, mendicité xale yi dañ ko interdire Sénégal donc bu fekkee dañ ko interdire am ñoo xam ne parce que dañu bëgg lu yomb jël ay xale di leen liggéeyloo ñu ci bëri sax jàng ñu demul nekkuñu ci ay daara jàng ñu alxuraan comme ni ko waxee parce que dafa nekk loo ak xam ne dafay indi xaalis bu bëri ci nga xam ne ñoom ñoo koy ñoo koy def donc loolu code pénal daf koy tere mais lépp li nga xam ne dafa nekk convention wala des textes yoo xam ne dafay aar doomu aadama d'accordul ci li nga xam ne mooy mendicité mendicité des enfants donc li a si ci nu dëkk rafetul également ci diine parce que amul benn diine boo xam ne dafay encouragé ñu bàyyi xale yi ñu mangé dans la rue parce que bu ñu leen bàyyee ci xale ci mbedd bi am na risque yu yoo xam ne voilà dañ leen koy dañ def loo xam ne peut-être suba dafay gàllankoor maanaam seen i en tant que tel moo tax lu ñu a la état bi am na ci rôle loo xam ne euh, léegi yow naka nga gisee politique bi nga xam ne état wu Sénégal teg na ko pour la protection de de l'enfance pour yow est-ce que politique boobu baax na baaxul loo si xalaat. alors li mu mën wax rek mooy que voilà comme ni ñu koy faral di wax rek état du Sénégal ñu baal ci kàddu gi avec tout le respect pour l' état du Sénégal. dañuy mm-hmm. moom mooy mooy champion ratification convention yi texte yi dafa jëm ci wàllum protection doomu aadama en tant que lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum protection de l' enfant donc loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais la réalité c' est que euh, ci ci ba léegi y' a des violations maanaam xale yi seen ak ak Euh, respecté wuñ noonu parce que waaw lu waay neex def dëkk boo xam ne également euh, parents yi joué wuñ rôle maanaam yar bi nga xam ne war nañ ko yar xale yi demee ko noonu donc euh, c'est les cellules de socialisation même dañu nekk en panne sont les de socialisation mooy école moom mooy la fac la fac en tant tel maanaam léegi rôle bi nga xam ne cellule yooyu dañ ko doon joué joué ko looloo waral léegi xale yi dañ leen Et malheureusement, comme euh, voilà, s'il n'y a pas une réelle volonté de l'État de vraiment protéger ces enfants-là, mooy waral indi euh, déviation yi nga xam ne donc la politique est là euh, le temps du juridique est là mais il faut vraiment de la rigueur de la responsabilité bu état jëlee décision des mesures mu jusqu'au bout parce que li ñu gis mooy mesure traînant ces mendicité mais après les enfants sont encore dans pour les il n'y a pas suñu ci wàllum politique bi nga xam ONG yi fi nekk ne dañuy yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu euh, yi gis nañ fi ay plan international ay UNICEF est-ce que jàpp nga ni ONG yooyu am nañ njëriñ trop euh, pour xale yi surtout les droits de l'enfant. alors li ma mën a wax ci loolu rek mooy que seen taxawaay dañ koy dañ koy parce que euh, dañ fa nekk ay ONG yoo xam ne dañuy yëngatu ci lu bëri ci wàllum. aar xale yi ki lépp loo xam ne dafay jëm ci wàllum sensibilisation ñaax nit ñi bañ a bàyyi xel ak ak élèves yi xam ne xale bi am na ko ak yeneen yoo xam ne ay plaidoyer yoo xam ne dañ koy def pour inciter les états à vraiment respecter davantage ou bien à protéger les droits de ces enfants là liggéey bu voilà liggéey bu rafet la mais euh, voilà comme le constat est que malgré lépp liggéey bi nga xam ne yëpp ñu ngi koy def ñoom en tant qu'organisation les problèmes sont toujours là les problèmes sont récurrents

l'État a un grand rôle à jouer parce que moom moo euh, la convention relative au vers la faim ratification nag boo ko déggee maanaam maanaam l'État du Sénégal s'est engagé à respecter tous les droits qui sont consacrés en fait dans ce texte-là qui sont consacrés aux enfants qui ce qui est différent de la signature parce que bon, les États-Unis n'ont pas signé la, n'ont pas ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mm. donc Sénégal si dafa signé ratifié maanaam dafa engagé wu pour que ak yelleefu xale yi ñu mën ko respecter dans la mesure du, du moo tax ma ne ku ci nekk rek am nga ci rôle boo xam ne war nga ko jouer parents yi surtout parce que boo jëlee sa doom également doo ko sànni ci mbedd bi donc euh, ñi nga xam ne peut être ñoom ñoo nekkal seen i doom et cetera euh, na ci aussi rôle boo xam ne bu am solo bu ñu war a jouer et l' état qui est là pour réguler pour protéger moom tamit dafa war a am fula ci li muy def mu jëlee décision mu dem ci jusqu'au bout mu xam ne c' est parce que dafa am principe quatre principe euh, directeur qui vraiment euh, accompagne cette convention là mu am ci principe bu ñu naan le principe de l' intérêt supérieur de l' lan mooy intérêt supérieur de l'enfant maanaam lépp loo xam ne dañ koy jël ci wàllu mesure ci wàllum loi ci ay décision dafa nekk loo xam ne dafay maanaam méngóog di jëmale xale bi kanam est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ñu bàyyi xale bi mu nekk ci kër goo xam ne ki koy liggéey doo mën na koo sàkku et donc dafa nekk yoo xam ne ñun ñëpp war nañ ci war bàyyi xel war nañ ko xeex parce que il en va véritablement Euh, Ousseynou Mbaye ñu gis ni kuréel yi fi nekk pour les droits de l'enfant bari na état bi aussi tout le temps ñu ngi koy dégg am na politique bu mu teg mais terewul ba léegi ñi ngi jalgati àq ak fu xale yi euh, pour yow lan moo si solution ci ci tënk. alors solution ci tënk man dama yaakaar ne xam nga ñun sax dañuy faral di wax déclaration universelle des droits de l'homme dañuy faral di wax la convention internationale relative aux droits de l'enfant mais dañuy il en fait la charte de Kurukan Fuga, hein, qui date de, cette, de 1236, et qui régissait en fait la vie du grand ensemble Manding te boo demee ci ci charte boobu noonu dafa nekk charte boo xam ne 44 articles la mais ci article 9 bi ñuy wax foofu maanaam l'éducation jàngum xale yi ñu ne jàngum xale yi ñëpp la maanaam ñëpp ñëpp la war ku ci nekk rek da nga ci war a maanaam euh, béy sa waar pour que xale yi maanaam une éducation de qualité moo tax ma yaakaar ci solution yi war nañu bàyyi gën a bàyyi xel ci éducation bi nga xam ne moom dañuy jox ndaw ñi ñëpp nag war nañ ci impliqué wu parce que c'est une responsabilité euh, ñu partagé beneen solution de bàyyi xel wala ci ko ñu ngi wax euh, travail et exploitation des enfants mais est-ce que yi xam nañ lan mooy droit de l'enfant est-ce que xam nañ convention yi existé est-ce que et donc il faut que ci wàllum formation bi ñu gën a accentuer liggéey bi ci foofu et puis ñu mën def également des campagnes Euh, surtout en faveur des parents pour ñu a xam maanaam droit yi nga xam ne seen i doom am nañ ko mu nekk des droits qui sont partagés un peu partout diine yi également santaane ko ñi nga xam ne dafa nekk aussi en corrélation avec ñun li a gëm en tant que tel beneen bi ma yaakaar ne comme solution bu ñu ko defee te mm-hmm. mm-hmm. euh, dina ci wàllu dundu xale yi moo nekk euh, ñu gën a maanaam jox cër association yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum protection de l'enfance c'est que y a beaucoup d'associations qui sont au Sénégal di yëngatu ci wàllum xale yooyu mais accompagnement bi ci war war a jóge ci état accompagnement boobu en fait dafa xaw a soxla beneen bi muy terminé mooy li nga xam ne dafa jëm ci wàllum développement économique et social nan la ñu mën a def pour que maanaam foyer boo gis wala famille boo gis ñu mën a am le minimum pour mën a maanaam téye seen doom seen kër pour ñu mën a dund dans des conditions optimales permettre véritablement de préserver leur dignité loolu il faut que vraiment état bi également ku ci nekk rek bay si sa waar parce que li ñu même ne maanaam li ñu xam ne amul lenn loo xam ne war ko justifier mais pauvreté euh, dafa nekk loo xam ne lu ci bëri moom mooy tax muy pousse nit ki wala ñun ñëpp ñuy euh, encouragé xale yi pour ñu pour mën a jàppale seen waajur malheureusement euh, problème yi inconvénient bi c'est que après seen jàng dafay impacter moom seen santé bi nga xam ne. war nañ ko war nañ ko am donc loolu daal laa yaakaar ne buñ ko jàppee wala buñ buñ ci sukkandikoo xëy na peut-être dina am njeexital ci wala préservation protection des droits des enfants. voilà merci beaucoup Seynou Mbaye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. may fàttali spécialiste nga en droits humains.